sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa baad فللشاعر عبد القادر سيس هذه القصيدة التي نظمها في الدفاع عن اللاعب إدريس جانجي والقصيدة مطرزة بحروف المعجم بسم الله الرحمن الرحيم أبا شعار اللواط اللاعب البطل إدريس إن عد الإسلام قد خذلوا بانت بطولة إدريس الشعار أبا له بذلك من أفكارنا حلل تبا لمن شغلوا بالمال عن قيم ومكرمات بها الإنسان يكتمل ثبات إدريس مع ما اختير من قيم ومكرمات له فخر لمن عقلوا جزيت خيرا بك الإسلام مفتخر والمسلمون معا يا أيها البطل حميت عن لبس ثوب دين لابسه ينحو الفساد له والعيب والخلل خذلت من يعبدون المال معتصما بالدين والدين يعلو ليس ينسفل دروا بكونك بالإسلام معتصما ومن به يعتصم يقليه من غفل ذل الذي يكره الإسلام ملتنا والمسلمين يرى ينحو له الخجل رئيس جمهور نردع من يريد به كيدا بغاة فرنسا عندهم حيل زبرت أشكو إلى الله الأمور بغى على عبادك يا قهار من جهلوا زبرت أشكو إلى الله الأمور بغى على عبادك يا قهار من جهلوا سيحكم العالم الإسلام من كره انتشاره لهم الخسران والوجل شاهدتم الواقع الأعداء قد فزعوا فالدين منتشر في الكون منتقل صفوفكم يا ذوي الإسلام قاطبة سووا العدو لدود همه الفشل ضاقت بنا الحال فلنصبر سينصرنا الله فهو نصير ما له مثل طابت نفوس ذوي الإيمان طيبها إيمانهم إن ذا الإسلام يحتفل ظلمت والله يا إدريس ثق أبدا billahi laa taxsha man jaaru wa maa cadalu عصيان أمر الذي أعلى بلا عمد سماءه غبه الخذلان والزلل غنى العصاة إلى فقر ومتربة يجرهم إن ذا العصيان ينسفل فسوق من باللواط الله ربهم يبارزون بدا والقبح ما عقلوا قبوركم حفرت يا من إلهكم tubaarizuuna walam turshidkum rusulu karihtumu alxaqa walxaqu uctala wa bada walaysa yaxfiihi walaysa yuxfiihi shaytaanun wa muxtabilu laa tuflixuuna shaqiitum yaa cidaa qiyamin yarda biha kullu shaxsin ma bihi cilalu masirukum yaa cidallahi alsaciiru tawa man hammuhu hadmu rukni ddiini waljadalu masirukum yaa cidallahi alsaciiru tawa man hammuhu hadmu rukni ddiini waljadalu nuciinu idrisa qumu inna saaxibana yuridu suan bihi man an hudan kasilu nuciinu idrisa qumu inna saaxibana yuridu suan bihi man an hudan kasilu haanat cidaana aba idrisu lubsa shicaarihim shicaaruhum alcisyaanu walxatalu wallaw can ilxaqi fusaaqan wama ragibu fi hadyi man diinuhu lislaamu hum kubilu yalqawna fi kiltayi daarayni kulla azan wa niqmatin wa azabin bisa ma faalu subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di jiital ci nuyoo bi ak ci ziyaar bi sëriñ Mouhamadul Muntaqa di ko nuyu di ko ziyaare te koy ñaanal suñu borom tabaraka wa taala di ñaan suñu borom tabaraka wa taala gën ñu ko fee bàyyil defal ko fan wu gudd yaram wu wér te dolli ay xéewalam ba mbooleem naal yi nga xam ni mi ngi koy naanal lislaam mu eggale ko ci sagoom di nuyu tamit mbooleem njabootu Cheikhul Khadim gépp di nuyu mboole mbëkk jullit yi mbokkal réew mi yëpp di ñaan suñ borom tabaaraka wa taala kenn ku nekk fa féete di fa liggéeyal lislaam suñ borom tabaaraka wa taala lépp loo xamante ni nii lu lay dimbali ca liggéey boobu la yàlla la ko suñ borom tabaaraka wa taala jàppandal di ziyaara tamit mbokki jullit yëpp ca nam gën a selle nam gën a tedde ah mbokk yi nag tey dañu dikk rek ci loo xam ni dafa doon xew-xew boo xam ni rek dafa xew euh, ñu bari ci mbokk yi séentu ci suñu kàddu muy joueur boobu nga xam ni moom la ñuy wax sa Gana Gueye nga xamante ni yàlla dafa dogal équipe bi mu doon euh, football footballé ñu yëkkati benn moyen boo xamante ni nii dafay màndargaal lenn ci loolu nga xamante ni nii ñooñu nga xam ni dañu am ñaari tur dañ koy def. moom nag mu gàntal loolee nu ngu koo sol a ah, ñoom nag loola ñu am nun ko gisee loolu nag muy euh, lu am solo wax dëgg yàlla ci taxawaay boo xam ne nii moom euh, jëmm jooju def na ko ah, liñ ci yitteel nag mooy taxawaay bi nga xam ni rek taxaw na ko ngir si siggil lislaam wane ni moom ab jullit la lépp loo xamante ni nii diineem daf ko ko tere rek moom loole daf koy wan ginnaaw loolu moo tax nag ñu yëkkati ci suñ xalima rek di ko sargal Euh, di ñaanit euh, mboolem ñi nga xamante ni nii ñi ngi yëngu ci euh, loolu mu yëngu loolu nga xam ne nii def na ko nga xamante ni nii ndonte ma nga ca loola di ca liggéeyit ca lay daan dooneem teewut ma ngay sàmmonte ak la nga xamante ni nii moom la ko lislaam sant ba bi nga xamante ni nii sàkku nañ ci moom mu sol mbub moom mooy mu gàntal ko nungu ko sol kon loolu ci leen yëkkatee suñu xarima ma wax ni aba bañ na allaahibu jour bi nga xam ni albatalu jàmbaar dëgg la idrisu te moo di idrisa chiaaral liwaati moom daal bañ na li nga xamante ni nii euh, mbir la moo xam ni dafay màndargaal ak ngóor jigéen mbub moomu li nga xamante ni nii moom lañ ci def dafay màndargaal ak ngóor jigéen moo tax bin bëggee mu sol ko bin sàkkoo ci moom mu sol ko moom daf ko gantal ma ni kon inna idal islaam yi naka ñi nga xam ne ay nooni lislaam lan qad xuzilu ñoom da tey jii gàcceele sëriñ tey jii daal am nañ gàcce ndax tey jii eh, gis nañ luñ foogut ndax jëflante nañ ak koo xam ni jàppoon nañ ni lan koy dig ci ay intérêt ak lan koy xoymat ci alal dina tax fépp fu ko jëmale rek dina fa jëm waaye moom nag eh, doon na jëm joo xam ni mi ngi bàyyi xel diineem ba loolu ñu doon sàkk ci moom ab safaan nunguwu ko baanat ma ni kon biir na butulatu Idrissa njàmbaaru Idrissa mi aba bañ na ashaara loolu nga xam ni dafay wane màndargam góor jigéen lahu ma ni kon euh, bi ci loolu nag lahu dina ko ñeel xulalu ay koddaay min afkaarinaa yoo xam ne nii dañ ko koy jox ci suñuy xalaat mani moom daal ak nja njàmbaaram njàmbaar gu feeñ la ndax loolu nga xam ni ñu ngi ko ko doon defloo ta moo di ko solloo mbub moom nga xam ni dafay màndargaal borom ñaari tur yooyu mu gàntal ko ma ni gàntal gim mu gàntal nag sol mbu moomee moo tax nag ñun dinañ jël ci suñ xalima ay euh, njukkal yoo xam ne nii dañ ko koy solal muy mbubb moo xam ne mbubbu njukkal lay doon ma ni tabban perte nga li man ñeel la ñi nga xam ni suuxilu dañ leen a soxlaal bil maali ci alal nga xam ne ñoom alal rek moom mooy seen soxla an qiyamin walif ay valeur wa makrumatin ak ay tedd nge yak tamilu yoo xam ne dafay mate bihaa ci ñoom al insaanu doomu aadama ma daal am na ñoo xam ni daal perte ñu perte lan ñooñu nag ñooy ñi nga xam ni daal amuñu benn soxla amuñu benn yitte bu dul alal valeur yi nga xamante ni nii ak tedd nga yi nga xam ni ci la doomu aadama di mate ñoom loolu yitteelu leen ma ni nag sabaatu idrissa sax gi nga xam ni idrissa mi sax na ko ma maxtiira min xiyamin ànd ak li nga xam ni nii tànnees na ko ci ay valeur wa makrumatin ak ay tedd nga lëhu ñeel ko faxrun ma ni loolu ndam la li man ñeel ñëpp ñi nga xam ni nii aqalu ànd nañ ak seeni xel ma ni daal képp koo xam ne daal tey jii ab jullit nga doon ko xam ne nit ko ànd ak sam xel nga xam nga ni tey jii moom mi sax gim sax ànd ak li nga xam ni moom lañ ko tànnal ci ay valeur ak ay tedd nge loolu moom ndamam la waaye ndamu jullit ñëpp la ma ni ko kon juzita xayran yàlla nañ la fay aw yiw ma ni ko al islaamu islam daal muftaxirun tey jii mi ngi ndamu bi ci yow wal muslimuuna jullit yi ñi ngi ndamu maan boole seen jullit yëpp ñi ngi ndamu ci yow yaa ayyuhal batalu yow mi nga xam ni jàmbaar dëgg ma ni ko xumita aarees na la an lubsi sawbin walif sol mbub moo xam ni diinu laabisihi diine ko ko sol yanxu dafay jublu lahu ñeel ko alfasaadu ak yàqu wal aybu ak sikk wal xalalu ak ak yàq ma ni ko daal yow daal aarees na la ci nga sol mbub moo moom nga xam ni dafay màndargaal ak ngóor jigéen kon muy mbub moo xam ni képp ku ko sol daal sa diine moom di nga ca gis lu la naqari ca gis sikk di ca gis ak yàqu ma ni ko xazalta yow nag gàcceel nga man ñi nga xam ni yaabuduunal maala dañuy jaamu alal man ngay aji jàpp bi diini ci sa diine wa diinu te diine jooju nga jàpp nag yaalu mooy li nga xam ne nii dafay kawe képp ku jàpp ci moom it da ngay kawe lay sa yan safilu diine moom du suufe ku jàpp ci diine tamit doo suufe yow nag jàpp nga ci sa diine kon toroxal nga ni ñi nga xam ne ñoom jàpp nañ ni doomu aadama daal moom alal la war a jiital ci lépp yow daal jiitaloo alal daraw ñu la ko doon solloo nag xam nan bi kaw di ka ci nekk gi nga xam ne nekk nga ko yow moo mutasiman di koo xam ni da nga jàpp bi islaam ci lislaam wa man bihi yaatasim képp ku jàpp ci lislaam nag yàq lii faaw daf koy bañ man ña nga xam ni rafalu dañoo sàggane lislaam ma ni ko ñooñu ñooñu la ko doon solloo nag tey jii ñoom xam nañ yow ku jàpp nga ci lislaam islaam nag mooy diinay dëgg moo tax képp ku ko jàpp ña nga xam ne dañ ko sàggane faaw ñu def la ab noon ma ni zullul lazi torox tey ki nga xam ni yakrahul islaam dafay bañ islam di ko sib millatana islam mi nga xam ne mooy suñu ngir wal muslimina di bañ jullit ñi di leen sib yuraa kooku gàcceem des na ko gis toroxteem des na ko gis yan xu dafay jublu lahu ko alxajalu gàcce islam daal képp ku ko bañ bañ jullit ñi yow moom sa toroxte ak sa gàcce ñëpp dinañ ca teg bët ma ni raisa jumhurina kon yow mi nga xamante ni nii yaay suñu jiital réew irda na nga jàjj man yuridu bihi kaydan képp koo xam ne nii mi ngi koy bëgg a fexeel ngir gàntal gi nga xam ni gàntal na ko sol bu moomee bugaatu faransa na nga xam nag ni ñooñu nga xam ne nii ñooy kàccoor yooyu bewkat yooyu nga xam ne ñoo dëkke ay indahum xiyalu ñu am ay pexelan kon nag yow mi nga xam ni yaay chef de l'état bi muy Macky Sall ñu ngi lay sàkku na nga ko taxaw yow ak say ministre ma ni zabartu man nag bind naa asku di jàmbat ilallahi jëm ci yàlla al umura samay mbir ak mbiri julli ji maa ngi jàmbat yàlla suñu mbir baxa yow sa yow suñu borom bew na ala ibadika ci sa jaam yi bew na ci kaw sa jam yi nga xam ni dañ laa gëm ya qaxaaru yow yàlla mi nga xam ni yaay notaakoon bi man jahilu ñi nga xam ni dañ laa umpale ma ni sa yaxkumu dina mu sa at atte ji nag al islaamu l'islaam al alama monde bi islam moom faw rek mooy li nga xam ne nii mooy doon diine mooy doon diine ji nga xam ni mooy mujj àtte àdduna bépp man karihun tisaarahu ñi nga xam ni nag dañuy bañ tasaaroog islam lahum ñoom moom nan xam ni ñeel na leen alxusraanu perte nge wal wajalu ak tiitaange l'islam daal mooy diine ji nga xam ni mooy mujj doon diina ji nga xam ni mooy gën a fës ci kaw suuf ni ko suñ borom tabaraka wa taala waxe huwa alladi arsala rasulahu bil huda wa diini alxaqi li yuzhirahu ala diini kullihi wa kafa billahi shahidan kon l'islam moom mooy diina ji nga xam ni mooy mujj atte àdduna man shahadtu bul waaqia yéen ñëpp janloo ngeen ak li nga xam ne mooy réalité bi nga xam ne nii tey ji moo am al aada u mbooleem noonu lislaam yi qad faziu dañoo tiit fa diinu ndax diine muy lislaam muntashirun mi ngi gën di tasaaroo fil kaw ni ci àdduna bi muntaqilu mi ngi gën di déplacé wu di egg fu ne tey jii daal kon ñi nga xam ne noonu lislaam lan lii ñuy fexee lislaam lépp ak coono yi ñu ciy daj lenn képp moo leen ko teg tiitaange gi nga xam ni am nañ ko ci tasaaroo gi nga xam ni diine lislaam mi ngi koy tasaaroo ci àdduna di déplacé wu di dem fu ne ma kon nag yaa zawil islaam yi yéen ñi nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéen a lislaam xaatibatan boole seen sawwu na ngeen tolloole sufufakum seen i sàppe al aduw na ngeen xam ni seenub noon la duudun noon la boo xamante ni nii du jàpp bàyyi noonu la boo xam ne daal moom lu mu ŋànk bala koo bàyyi da koo dagg xëmm wuute li nga xam ne nii nag mooy yitteem alfasalu mooy seen échec na ngeen xam ni daal yéen lisla yéen waa lislaam xam leen ni noon bi nga am bi ngeen am noonu la boo xam ni moom bu jàppee du bàyyi te moom benn jubluwaay la am jubluwaayam mooy ngeen fexe ba échec yéen waa lislaam daaqat bi nal xaalu dëgg la nag situation bi moom lu compliqué la ci ñun waa lislaam fal nasbir waaye nag nañ muñ sa na allahu ndax yàlla dinañu dimbali foofu ndax moom yàlla nasirun aji dimbalee la joo xam ni maa lahu masalu moom suñ borom tabaraka amul kenn kuy nuroog moom taabat ma ni nag dal na nufuusu zawil imaan yi bakkani ñi nga xam ni dañoo gëm tayyabaha li nga xam ni nag moo dalal seen xel imaanuhum mooy seenu ngëm mbooleem ñi nga xam ne dañoo diina woo diiney lislaam moom ñoom ci xel mu dan dal lan ne xel mu dal moom nag li leen ko may mooy seenu ngëm inna zal islaam yi ki nga xam ne daal dafa diina woo lislaam yaxtafilu kooku moom fu mu toll rek mi ngi feetawu ci victoire bi nga xam ne nii suñ borom tabaaraka wa taala jox na ko ko te moo di diine ma ko kon zolim ta tooñees na la zulimta tooñees na la wallahi maa ngi koy gin ci yàlla yaa idris yow idris siq abadan billahi waaye nag na sukkandiku ci yàlla rek laa tax sa tabul ragal man jaaru ñooñ nga xam ne dañoo dëng wama adalu tamaanduwuñu yow daal ñëpp xam ni yow dañ laa tooñ waaye nag na nga sukkandiku ci yàlla tabul ragal ñooñu nga xam ne ay nit lañ ñoo xam ni dañoo dëng tamaanduwun isyaanu amri ladi na ngeen xam nag ni mooy ndigalul yàlla mi nga xam ni ala moo kawel bilaa amadin ci lu amul benn keno sama ahu asamaanam si ribbuhu mooy ndigalam la nga xam ne moo ci mujj alxislaanu mooy toroxte wa zalalu ak tarxiis mooy ndigalu suñ borom daal kenn du ko def ba jële ca ndam ku koy def ku nekk rek na nga xamante ni ci toroxte képp ngay mujj rinal koomum ñooñu nga xam ni seenum koom dañ koo def muy ak mooy yàlla yajurruhum seen kom moomu daf leen di bijj ilaa faqrin wa matrabatin ci ak ñàkk képp la leen jëme képp koo xam ni daal koom ma nga am la la ko may mooy mooy suñu borom tabaraka wa taala na nga xam ni sa koom moomee ci ak ñàkk nga gën a tar képp ca la la jëmee inna zal isyaani ndax kii mooy yàlla moom lu man di xew rek yan safilu dafay mujj suufe kon képp koo xam ni yaa ngi liggéey la ngay liggéey na nga ca seet yàlla buñ la bëggee jëme ci loo xamante ni lu sa diina bañ la bu ko alal jaral kàccoor ñi nga xam ni yu baari zuuna ñi ngi léewaatoo bil liwaati ci ak ngóor jigéen allah rabbahum yàlla seen borom badaa ñooñu seenu kàccoor feeñ na wal qubxu seenu mboñ feeñ na maa aqalu te ay nit lan ñoo xam ni daanaka boo dee xewal sax ñoom ànduñu ak seeni xel képp koo xam ni daal yaa ngi léewa ak yàlla suñu borom tabaaraka wa taala ci fexe tasaare loolu di ak ngóor jigéen ci kaw suuf na nga xam ni yow sa kàccoor ak sa mbon moom lu feeñ la mani karitumul xaq yéen ñooñu nga xam ni nag yéen a mani quburukum quburukum seeni bàmmeel xufirat xam leen ni gasees na ko yaaman yéen ñi nga xam ni tubaari zuuna yéen ngi yéen a ngi léewaatoo ilaahakum ak yàlla seen borom walam tursidkum te jubalu leen ar rusulu ñi yàlla yónni yéen ñi nga xam ni daal mboolem yonent yi suñ borom tabaaraka wa taala yónni lim fi indi ci njub doyu leen ba tànn ngeen weneen yoor wu ngeen jaar di léewaatoog suñ borom tabaaraka wa taala ci lépp lu muy tere na ngeen xam ni yéen moom seeni bàmmeel gasees na ko yéen daal dara desul lu dul ngeen dajeeg seen borom tabaaraka wa taala mu atte leen karihtumul xaq yéen nag bañ ngeen dëgg wal xaqa wal xaqu te dëgg gi googu ngeen di bañ ictalaa kawe na ba pare wa badaa feeñ na ba pare walay sa yux fii te mënatu koo nëbbu chaytaanun benn chaytaane wa muxtabilu ak koo xamante ni dafay jànnaxe ak a nattable laa tuflixuuna na ngeen xam ne nag du ngeen am réussite mukk ci li ngeen bëgg shaqiitum texe di ngeen yaa idaa qiyamin yéen ñi nga xam ni yéenay noon yi noon yi valeur yi nga xamante ni bi biha da koy gërëm kullu saxsin jëpp jëmm joo xam ni maa bihi ilalu feebar nekkul ci moom yéen ñi nga xam ni daal valeur yi nga xam ni waxuma la sax ab jullit waaye ku dul ab jullit xam na ni lii mooy li nga xam ni mooy li jub mooy yoon wi nga xam ni ci la bépp doomu aadama war a jaar ci sàmm dignitéem yéen ñi nga xam ni yéen a teggi yoon yooyu jàpp ni nag am na yeneen yoon yu ngeen war a mën a rëddal nit ñi ñu bàyyi fi yoon yu baax yooyu topp leen ci la ngeen bëgg na ngeen xam ni yéen moom texe di ngeen ndax li ngeen bañ muy valeur yi ngeen di bañ bëgg ko fee jële valeur la yoo xam ni képp koo xamante ni nii nit ku ànd akum xelam la du def lu dul gërëm ko ma ni kon masirukum na ngeen xam ni seen mujj yaa idallahi yéen noonu yàlla yooyu assairu moo di safara tawaa alkuna man képp koo xam ni hëmmuhu lay yitteem hëdd mu rukk nit diini mooy màbb ponkub diine wal jadalu ak di dàggeek ki nga xam ni ñooy ay borom xam-xamam képp koo xam ni daal lii sa yitte mooy fexe ba màbb diine ak di dàggee ak borom xam-xami diine yi na nga xam ni yow sa mujj mooy safara nuiinu kon nag ñun ñi ngi taxaw di dimbali Idrissa mbokk mi di Idriss eh, eh, Idriss nuiinu ñu ngi taxaw di dimbali Idrissa mbokk mi di Idriss xuumu na ngeen taxaw yéen jullit yëpp inna saaxibana naka sunu waa ji daal yuridu su an bihi dafa dafa dafa namm ci moom lu ñaaw man ñi nga xam ni kasilu dañoo tàyyee la an hudan walif ak ñub ñun ñëpp nan xam ni daal ab jullit la te lim def diine la ko defal kon nag ñun ñëpp nan ñëw taxaw ci gannaawam jàppale ko wallaw ñoom noonu yàlla yooyu nag dëddu na na anil xaqi walif dëgg fu saaqal di ay saay-saay wama raxibu xemmeemuñu fii hadyi man ci njubug yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni diinuhu diineem al islaamu moo di lislaam hum ñoom daal kubilu ay nit lañ ñoo xam ni dañ leen a jéng ci jéngi safara yàlla xaw na moo tax dinañ daje fii kilte yi daare ni ci ñaari kër yëpp muy àdduna ak la adan lépp luy ay lor wa niqmatin ak mbugal wa adabin ak mbugal lépp luy lor ak mbugalum suñu borom daal ñoom danan dajeeg moom àdduna ak allaaxira bi sa ndax bon na lool maa la nga xam ne nii faalu ñoom na noonu yàlla yooyu ñu ngi koy def ci gàllankoor lislaam ak jéem a gàllankoor képp koo xam ni gis nan la ngay jéem a dund sa diine waaye nag yàlla moom mi nga xam yàlla mi nga xam ni moom képp kum dimbali nga am ndimbal yàlla na suñ borom tabaaraka wa taala dimbali mboolem julli ji fun man di nekk ci pàkki suuf yi dëgëral lislaam képp koo xam ni tamit yaa ngi jug ngir xeex diine ak daaneel lislaam ak fexe ba jële fi valeur yi nga xam ne nii doomu aadama bu nekk da nga ko war a sàmm ñi nga xam ni dara du seen yitte lu du loolu ñi ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàlla na nasaxal seen pexe bi xurmati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bi xurmati cheikh alxadim kon mbokk yi foofu la ñuy daaneel suñu kaddu di dellu nag di sant ñëpp di jéggulu ñëpp liñ liñ ci taxas yëkkati suñu kàddu daal mooy li nga xam ne moom jëmm jooju def na ko muy loo xam ni daf ko defal lislaam bépp ndax képp koo xam ni sagal nga lislaam jullit ñëpp nga ko defal képp ku yëkkati lislaam jullit ñëpp nga ko defal kon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf alhamdulillahi alkarim silmilan alastifaadi bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني